Euh, suñ benn naataango chroniqueur la boo xamante ni vraiment gis nañ bu baax a baax sa sortie euh, gis nañ bu baax a baax également sa démission au niveau de cette euh, chaîne de télévision mu nekkoon coow loolu aussi pour mën a j'interpelle directement ñi animer débat parce que parfois aussi débat yi daf leen di dépasser un débat boo koy organiser danga koy canaliser maintenir le débat beneen bi aussi mooy gis nga lii jàngal la ci taskati xibaar yi ñu maytu ni homme politique yi parce que ñu ci bëri ay ngistalkat lañu lu ñu la defal wax la ko mooy li am ni parce que toog si télé mu naan la ñëwoon nga sama bureau yaa ma doon saraxu parce que ñoom ñëpp nga homme politique yi du ma ne homme politique parce que homme politique c' est la vraie et pure politique mais politiciens yi ñi nga xam ne la politique politicienne la ñuy def ils ne sont que là pour leurs propres intérêts ñu ci bëri gaa nag am na ci benn certain benn lim boo xamante vraiment sont des leaders des hommes politiques des hommes d' état mais tey jii jëflante boo jëflante rek ñoom déggoon nañ ko fi rek ci koor gee yi passé ku taxaw ne diw ñaan si nga ma ba ngay tudd ak nangam sang yooyu moo amul nga loolu rafetul moo tax boo jëflante ñoom xoolal ñan ngay seqal jëflante jàngal la benn bi aussi mooy euh, euh, lu jëm ci télévision yi nañu xoolaat aussi également ni ñuy defee suñu plateau yi ak chronique yi wax dëgg yàlla man mënuma comprendre euh, chronique yoo xamante ni que plateau boo xam ne ñi fa nekk ñëpp dañuy dañuy daal dañuy en fait doo xam plateau bi c'est mal organisé en fait nañu xoolaat parce que média dafa bokk ci liy defar société li éveiller les consciences nañu ko organiser waat xoolaat naka la ñuy invi invité nit ñi am na ñoo xam ne aussi ils n'ont pas euh, leur place assez au niveau de ces plateaux am na ñoo xam ne kenn wuru leen jox parole gis nga man am na ñoo xam ne du ma tudd seen tur de mais su ma amoon dogal ci réew mi kenn du leen jox parole kenn du leen invité ci télé kenn du leen interview parce que duñ nitu dara tekki euh, tekkuñ fi dara te jariñ ko parce que ay baadoola lañ am na ñoo xam ne fii ci réew Sénégal jëluñu lenn lenn lan bañ di leen jox kàddu loolu moom ñun dañ ci interpellé sama bopp ak ñeneen am na ñoo xam ne man ñi may woo ak yu bëri mais du ñu bëri dama leen jël am na ñoo xam ne mérité wax Sénégal dégg leen li Père Sall bi di wax dafa am ñoo xam ne dañ leen war a fay ñu wax am ñu war a fay ñu noppi am na ñoo seen wax dafa am njariñ duñu wax nag dañ leen war a fay ñu wax neexal leen ngir yàlla wax leen am ñoo xam nag moom bu ñu waxee rek musiba naaru lay am dañ leen a war a fay ñu noppi réew mi nag looloo fi toll am na ñoo xam ne maîtrise euh, euh, mérité wuñ parole mais aussi nañu xoolaat bu baax a baax ñi ñuy jëflanteel surtout wàllum politique politique Sénégal fii nii mu ko gisee nii politique yi ñu ci bëri li waa ji waxoon rek waxu politicien moom ku ci dóor sa doom rek def nga erreur waaw lu waay la la jàngatkat ba waxoon rek ba oto bi accidenté ñëw ñu am euh, ñu laaj dof ba fekk fa dof ba ne ko ba euh, ñëpp ñoo dee mu ne am na kenn ku ci desoon waaye da doon wax deewul waaye gëwuma ko ndax waxu politicien jërul gëm ma jekkali ko sa à que tey jii en fait dem nañ ba manque cette Torah manque set crédibilité rupture de confiance bi am entre eux ak les administrés ak les les sénégalais loolu moo gën a bon rupture de contrat boobu noonu am rupture contrat boobu dagg